jërë ngeen jëf mbokk yi ah di jaajëfal bu baax a baax Issa Issa maa ngi koy nuyu bu baax a baax ah moom moo nekk ci xarala gi di ko nuyu moom ak ah, tuuti tuuti tuuti moom léegi mag la tuuti Ah, ak kii di Thiaw ñoom ñoo nekk ci wàllu ah, xarala gi moo tax maa ngi leen di jaajëfal mbokk yéen itam yéen ñu ñu teewloon cant ak ngërëm ñeel na leen dal leen ak jàmm kenn ku ci nekk nuyu naa ko ci nuyooyu gën ci nuyooyu door suñu émission ñu ci ànd ak yéen ah di ci ànd ak man waaye di ci ànd ak itam sama ah, suma raq suma xarit donc suñu ndaataangoo euh, taskatu xibaar la Matar Cissé Matar Cissé asalaamaaleykum maaleykum salaam Baye Jibi ba am nga jàmm ñu ngi lay nuyu di la fay bu baax a baax dama daal faa jàpp sama. bu <laughs> ko wax gars yi waaw ñu baal àq. baal nañ leen àq di nuyu waa régie ñoom tuuti ñoom ñëpp ñu nekk si rédaction bi. jaajëf euh, waa Sénégal seet yëpp di wax euh, njabootu Sénégal. Mhm. nekk si biir réew bitim réew. Mhm. Euh, ñu daal di door si bi. ak jàmm ak salaam jërëjëf Matar Cissé moom nag kenn la ci suñu ndaw yi nekk ci kër gi di liggéey liggéey bu am solo ah saa su terrain bi yëngatoo rek xam leen ne moo ko yëngal moom ak yeneen gars yi ay ñoom Waly ah ñoom ñoo ñooy nekk ci terrain bi souvent nag moo tax liggéey bu am solo bu bu ci gën a bëri ah ci terrain bi ñoom ñoo koy def moo tax tey ji nii mu wàccaloon ma ci terrain bi ndaxte ah, li ci gën a fës ci li ñu fas yéene waxtaanee moom moom moo demoon ci conseil national de la consommation ah nga xamante ni doxoon na ci diggante mm-hmm. ministre bii di Serigne Gueye Diop ak ñi nga xam ñooy producteurs yi maanaam ci gàttal daal am ndajem ëngam loola ngir ñu doon waxtaanee ANANES def ngir lépp lu jëm ci wàllu wàññi njëg yi nga xam te ne nii moom la ñuy jëfandikoo ci ñam donc ñu mun kaa dëggal tey jii nag am nañ ci dogal yu am solo yu ñu jël moom mu ngi woon ca saal ba xam mbir ya na mu tàmbalee ah na mu doxalee ba fi mu jeexee donc mu fas yéene ci ñëw ci ak ñun ah waaye leneen ci ponk itam ngeen xam ko bu baax a baax mooy sànq ca euh, assemblée nationale ñi nga xamante ne ñooy groupe parlementaire bi di yeewi askan wi ah nga xamante ne ka nekkoon ca bopp ba moom mooy ministre bi ñu dénk wàllu pétrole sa jamono jile di Birame Souleye Diop nekk kenn ci euh, ñi nekk ci waa Thiès di fa politique mu yoroon sax benn euh, bànqaas di mairie ba donc moom itam kooku ngeen gis di Ayib Daffé moo ko wuutu ci présidence bi ci yeewi askan groupe parlementaire ba waaye moom tamit Ayib Daffé yoroon ab euh, commission boo xamante ne nii jël na leng yi jox ko kii di euh, honorable député Ismaïla Diallo yooyu nag assuré woon intérim bi moo nekkoon Cheikh Thioro Mbacké ah, waaye fi mu toll nii nag euh, loolu am na. loolu tamit euh, ku ci bëgg àddu yi tamit euh, di nga ci ñëw rax ci dolli euh, suñu président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye actuellement mu nga ca tugal di France ah di fa nag amal tukki nemmeeku bu am solo waaye nag saa si tembe foofu noonu mu ngay am ñu muy dalal am ñoo xam te ni ñu ngi waxtaan ak moom ñoo ngi koy dalal ah suñu ndaw yafa ne ah, am na lu ñu jox ci ay xibaar donc ci kanam itam dinaa leen ko baaxee ah, ci vidéo lu ñu war a seetaan Ah, jëm ci moom nga xam te ne ni daje na ak sax ki fi nekkoon ñaareelu ah, président bu Sénégal ngeen gis ko di ah, président Abdou Diouf donc daje nañu waxtaan nañu donc la tukkee ci waxtaan bi yëpp itam dinañ leen ko baaxee ci kanam tuuti donc yooyu bokk na ci ponk yi gën a gën a gën a fës ah, ci actualité tey bii nii donc moo tax ah ñu fas yéene ubbi antenne bi ah, fii ay simili yu néew ngeen daat cee àddu ah, donc ñu fas yéene ci waxtaan mu gën a yaatoo alors ma ci ànd ak nag suma naataango di Matar Cissé mm-hmm. waaye numéro de téléphone bi xam naa dina affiché ci kanam tuuti rek pour ngeen mën a participer yéen tamit en direct parce que seen seen jotaay la moo tax saa saa su ne ma ci ànd ak yéen jërë ngeen jëf en tout cas merci fidélité ñi nekk ci direct bi ma nuyu leen tàmbali kook ñoom ah, su ko defee euh, xam naa ne dinañu dugg itam euh, waxtaan ak ku mel nii Euh, Momar mm-hmm. Ndaw mi jiite ASCOSEN dinañ ko woo itam ngir xam xalaatam mm-hmm. jombul itam Ayib Dafe dina dina dugg waaye tamit ki nga xam te ne mooy Ismaïla Diallo mm-hmm. ah di honorable député bi ma tudd léegi euh, ba ci ña nekk ci diwaanu France sax ah dinaa leen jéem a jokkoo ak ñoom ci émission bi jombul ngir ñu daal ñuy wax ah, la situation actuelle ah, foofu nga xam te ne ni moom ci diwaanu France ak visite bi nga xam la président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye di def foofee ca tugal alors may nuyu internautes may a may ah a moom gëjoon naa ko gis depuis ca salaam mais fidèle internaute la nag moom mu nga ca Espagne su ma juumul donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waa Espagne ah surtout nag euh, euh, Maymuna moom mention spéciale à elle waaye euh, Faatu soxna Thioub soxna Touré di madame Thioub kooku suma yaayu bopp la maa ngi koy nuyu sa taw góor bi mu ngi lay nuyu bu baax a baax. ah soxna Bouchra euh, salaam salaam ziar nañ leen delloo ziar soxna Bouchra Abraham Niang mes salutations à vous yow tamit jërëjëf ñu ngi lay nuyu Famalo ziar naa la Mariama Diom salut mon frère de cœur vraiment je fier de vous Sénégal 7 merci Mariama Diom donc yow tamit maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax baax tout comme Cheikh Abdou Mbacké donc mi ni wax nañu ziar naa leen Pape Mbaye Guèye tamit nee na Djibi Sarr Johnny l'ami de Serigne Mansour Sy Cissé Serigne Mansour daf may sonal rek <laughs> Mansour daf may sonal rek suma xarit la waaye daf may sonal samedi bu jot fii lay ñëw fii suba ngeen xaar ko rek 17 heures dina ñëwati fii ah, rayati maa ko wax rek Mansour rek suma waa ji mais dafay xuloog man rek ay température <laughs> bàyyi sëñ Mansour température palais ba Mansour damay rey Matar moo si sëriñ de température palais ba la ma gëj a jox xam naa dina ma jox température primature xam naa wala bu bu France xam nga moom moom info moom ci moom la fekk baax donc Mansour daf may sonal rek Pape Mbaye Guèye ah Mouha Diagne maa ngi lay nuyu Khadim Diouf ah jooni nee na ma salaam Sénégal Mouha Diagne ah, Bada Mbaye ah, Faye Abdou Bada Mbaye yéen xam nga dama leen di ubbil chaque jour une minute ou deux minutes yoo xam pour kañ leen sargal que ñun ñii di wax ngeen ñuy suivre c'est pas évident moo tax gërëm naa leen sant naa leen ah, mu ngi noonu gars yi bàyyi leen Mansour bi ngeen tooñ Xaadim Diouf bàyyil Mansour bàyyil Mansour si Cissé bi ngay tooñ may mun a hmm, euh, donc maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax nee na suma commentairewul yow bari ngeen ci moroom donc moo tax yéen ñi nga xam ne du ngeen bind sax yéen ñooñu laay gën a gën a nuyu parce que bind bi du du ñëpp a ko mën donc mm-hmm. moo tax ah ñi bindul laay gën a gën a ziyaara ah, di leen fekk ñoom ba fi ñu toog ne leen jàpp suma loxo bi di leen nuyu ci nuyoo yi gën ci nuyoo yi di asalaamaaleykum wa rahmatullah moo tax door nañu ko ah ci kanam maa ngi ñëwaat pour benn joxaat leen seen une minute ou deux yu ma leen di nuyu ñoom Gawsu Diallo ak Moustapha Diop ak Cheikh Abdou Mbacke ñoom ñëpp maa ngi ñëw pour nuyuwaat leen Marie Johnson ah, ah, ci yeneen i kii alors. Mm-hmm. Matar Cissé sànq yaa ngi woon fi nga xamante ne ni moom mooy ca euh, ndaje moom ma wax léegi muy conseil national de la consommation. Mm-hmm. entre ministre bi di Serigne Gueye Diop. Mm-hmm. ak producteurs yi. Mm-hmm. Matar lan lañ mën a jàpp foofu. waaw ah, liñ mën a jàpp tout d'abord euh, bari na xam nga wàllu dund bi muy ceeb diwlin ak li nga xam ne moom mooy suukar ak yu ni mel. dafa soxal askan bi. te jàpp nañ ne suñ ko wàññee rek dina dina tax li nga xam ne moom mooy le pouvoir d'achat des Sénégalais euh, nit ñi mën a économiser yi nga xam ne moom mooy seen xaalis hmm. rawatina ñu nekk bitim réew di di envoyé xaalis njaboot gi chaque fois dépense yu ni mel tey nag rencontre bi euh, réunion du conseil national de la consommation la hmm. jàppoon nañ ne sax tey peut être mesure duñ ko daal di matal tey waaye hmm. euh, ki nga xam ne mooy euh, le ministre Serigne Gueye Diop jël na ay ndogal ndogal yi li yees yi nag ci wàllu détail maanaam mbiru l'huile de palme raffinée xaaral Matar balaa ngay dem déjà ci forme bi ministre bi ñëw na heure am ñëwul ñëwul heure nag. ah garaaw loolu dañ koy. mais dañ koy baal dañ ko koy nangul léegi ñi ñu waxoon ni ñëpp. <laughs> dinañ ñëw nga laamee loolu. ah non man lépp laay laajte. journaliste d'investigation waaw man lépp laay laajte <laughs> léegi <laughs> ndax man fekkee ma damay laajte yow yaa fekkee léegi beneen bi mooy Matar. Eh. ñi waroon a ñëw ñëpp ñëw nañu am ñëwuñu. waaw ñu waroon ñëw nag ñu bëri ñëw nañ ñu ñu ràññee. kon jeex na ñoom Momar Ndao ak Aziz sax ñëw na. Mm-hmm. buggoon nañ ko jox micro bëggoon nañ ko jox mu wax waaye dafa jël parole en public expliqué ne moom euh, d'accord na si mesures yi nga xam état war na ko jël waaye nañ leen si boole hmm, ñu na ay discussions yu xaw a intense par euh, munu ci ñàkk na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom arrangé wu leen waaw munu ci ñàkk hmm. faaw mu am sax ay récalcitrant bu ñu demee ba application bi am hmm. mais loolu lépp tamit état bi euh, wóolu naa leen ne dinañu teg ay mesures yu leer nañ yoo xam dañ koy doxal alors ñun tamit ñu doxal mata ah, ah, léegi ci wàllu prix yi dafa am ay prix détail ak en gros ak nu mu demee. waaw prix nag lu ñu si euh, ba gën a gën a bàyyi xel. mooy mooy détail ak gros yi. bisimilah ma bàyyi la am na Sénégal yu jënd ba en détail su wàllu huile de de palme raffinée. Mm-hmm. boobu prix bi ñu ngi ko fixé à 1000 francs. Euh, mm-hmm. franc CFA. Mm-hmm. le litre. maanaam litre bi 1000 francs la. su nekkee riz brisé euh, bi nga xam ne ordinaire bi la. boobu euh, quatre cent dix dix francs la. Mhm. le kilogramme. Mhm. donc euh, sucre cristal bi moom six cent francs kilogramme la. waaye si mhm. mbiru sucre bi ki nga xam ne moom mooy njiital compagnie sucrière sénégalaise. ndawam bi ko fa toogaloon moom nee na d'accord ci loolu. moom mu ne six cent cinquante yi maanaam fukki dërëm yi moom doo ko siy teg. donc moom moom ba ko ministre bi joxee parole parce que ministre bi dafa amoon ab taalibe ñëw wax li muy wax ba jox leen parole ñu wax. déglu leen déglu leen loolu la kilifa di def sax. loolu la def après mhm. mu wax. c'est la démocratie waaw mais c'est la démocratie. waaw waaw waaj parole moom. dana carrément ak moom da da d'accordul ci li nga xam ne mooy. 650 am na ci droit. Mhm. pour pour sucre cristallisé. kon mhm. Sénégal dañu xam ne sucre cristallisé 600 euh, euh, francs léegi lay jar. bis bu ñu appliqué li nga xam ne moom mooy mbir yi. baguette pain bi nag comme mbokk séeréer yi rek. mburu wàllu mburu waaw mburu mi dégg naa wàññeeku na foofu moom Matar faa nga teg fa sa point ñoom Birama Coor ak séeréer si nekk fii yëpp mburu léegi ñaata lay jar. cent cinquante francs. mooy fanweer. fanweer hmm. fanweer. gaa yi problème weccet la doon wax. ay naam quinze francs ak yooyu. ay quinze francs. waaw ñu am weccet ak yooyu noonu. léegi wàññeeku na wàññeeku na cent cinquante francs la mburu di jar. Hmm. maa si kanam tudd dina joxe date bi. dañuy mhm. bañ a avancer de de trop. d'accord kañ kañ kañ lay prix di euh, effective. Mhm. si wàllu saago ciment bi nag. Mhm. foofu. Euh, foofu tamit am na solo am na solo. saago saago 50 kilo bi. cinquante la. foofu foofu foofu tamit dañ ko fixé 3 cinquante donc en détail loolu moo nekk prix yi. prix yi léegi nag waaw. léegi balaa ngay avancer Matar ci prix yi kon su ma la déggee bu baax. moom mhm. mooy euh, suukar bi. Mhm. suukar laa koy wax. Ah, mooy suukar bi ñuy wax noonu. waa waaw kilogramme bi. Ah. mooy cristallisé bi. Ah. léegi nga ne ma dafa jóge ci. waaw léegi 600. waaw mooy téeméer rek ñaar fukk. dem si 400. Euh, léegi ñu euh, wàññi ci ñaata. six six 600 la dem 600 la dem. ah 600 la nekk léegi 600 waaw 650 la woon. ah 650 la woon mooy téeméer ak fanweer daal ci gàttal. léegi léegi téeméer ak ñaar fukk la. waaw ah d' accord waaw il faut muy leer de. léegi dindi si ñu dindi si euh, yi. dindi nañ ci fukki dërëm baax na. mais waa compagnie sucrière moom ñoom nee na duñ ko d' accord. Ah, de ak mesure nga xam ne ah, moom mm. état jël. jàpp nañ ne. wax dëgg yàlla ataaya bi di saf. ak kafe gi di saf. waaw suñu mbokk yi nga xam ne dañu nekk waay waaw nañ ñu dimbale waay <laughs> léegi kon euh, léegi bi nga xamante ne nii moom moo nekkoon baguette mburu mi. waaw mooy miisu mburu bi. miisu mburu bi parce que faaw ñu utiliser terme yi ko olof di ko miisu mburu bi ñëpp ëmbale wuñ nañ ji bi tamit jamono jamonoy Macky Sall. waaw àggoon na ba 175. waaw ba 190. 190 da ngay dugg si bitik duñ la wecc 200 duñ la wecc. mooy 200 bi boo ko joxee. waaw ah euh, dañ laa waroon di delloo ñaar dërëm. ñaar dërëm mais dañ naan la doon nga nga nga bàyyi kon day dem ba nekkoon ñeent fukk daal. léegi fanweer la. la. mooy fanweer mooy ñetti fukk. ñetti fukki dërëm. d' accord na na leer na leer. <laughs> na leer kon léegi miisu mburu fanweer la mooy ñetti fukki dërëm. Mhm. alors euh, kilogramme mooy riz brisé bi. brisé non parfumé. parfumé bi léegi dañ ko homologué. dañ jàpp nañu ne ñaata la. 490 410. 410 francs. waaw le kilogramme. d' accord d' accord. d' accord 410 le kilogramme. d' accord d' accord 410 boobu boobu baax na. boobu baax na pour ñoom caw boobu baax na. <laughs> léegi léegi diwlin bi. Mm-hmm. di diwlin mooy raffiné bi quoi. bi ñuy wax noonu. Mm-hmm. boobu nga ne ma. litre 1000 francs boobu nee nañ litre bi ñaari ñaari ñaari téeméer la. ñaari téeméer waaw am na am na sànq ma interpellé mu ne ma ñoom seen koñ. dañoo ko jëndee 1000 francs mm-hmm. maanaam kon wàññeekuwul. waaye dafa dafa am précision précision de taille yi nga. ban la ci mata xam ne municipal def na ko. ban la parce que ba mu joxee prix ba pare. Mhm. dane euh, li nga xam ne mooy tout l'étendue du territoire Sénégal. Mhm. par rapport rupture bi nga xam ne ñoom woote nañ ko ñoom seen seen projet bi maanaam euh, gouvernement bu yees bi nee nañ dañuy vérifier ànd ak organe de contrôle ñu sévère. très ànd ak ñu ñu war a àndal. waaw def comme El lu nu mu defoon ñu wàcc sur le terrain mhm. contrôler boutique yëpp. ci quatorze régions Sénégal yi. ndax dégg na moom dafa mel ni sax dafa annoncé ni mille volontaires. Mhm. yu jug takku ngir jàppale leen ci. très bien mille maanaam ñi nga xam ne ay sénégalais lañ ñëw liggéey. d'accord lu lu bokkul ak mooy ñoom waa service d'hygiène ak ak yenn ci takk der yi ci mën a jàpp ak ñooñu d'accord waaw loolu baax na ci de ndax sama genre gi dañu dëgër bopp <laughs> dañuy nekk ca koñ ba di noggatu gars yi surtout ñu dëkk te am na ñeen ñoo xam dañuy tay la sax wootee man kay xam naa ne Ibrahima boutique moom dinaa ko boole su wàññu boole ko Cheikh boutique ma nekk sama koñ Cheikh boo ma ñëwee tey ji soo wàññiwul donte ne affaire bi entrée en vigueur bi <laughs> waa kay ndax foofu la ñuy tàbbi après mais en attendant ñu dugg ci euh, waxtu wi ñu ko war a jëmmal mais mais mais mais sànq yaa ngi may wax ne. Mm. Euh, euh, kon mille francs la. Mm. mooy lu jëm ci wàllu diwti euh, diwlin bi. waaw diwlin bi. Mm-hmm. ndax léegi ñu jëm ci ban pour tëj ko. en bi rek. waaw en gros bi en gros u huile de palme raffinée boobu dix huit la. Mm-hmm. maanaam bidon vingt bi. Mm-hmm. ñi nga xam ne sama yaay yi nga xam ne dañuy jënd di jaayaat si marché yi. bidon bi ñoom war nañ ko mën a jëndee léegi ñooñu daf leen war a yombal ñooñu dafa war a yomb. ci ñoom nguur Macky Sall demoon na ba vingt mille et bëri woon na de ñu ngi doon ko ñu ngi doon ko ñaawlu mooy sànq bi nga mujjee nag mooy tonu ciment bi. tonu ciment tonu ciment moom ku ne xam na ne moom. Mhm. waaw taaw bu góor la fi woon. Mhm. Euh, ñaata la woon ak ñaata la toll fi mu toll nii ci leeral. léegi nag 3550 la woon waaye ciment bi daanaka 4000 yi soo ko joxee woon lu ñu lay wecc mooy 250 wala des fois sax fanweer lañ lay lan lay wecc ça dépend si région bi nga nekk. Mhm. ñooy njëkk yëg information bi. Mhm. yenn régions yi sori yi duñu duñu am information bi. Mhm. ñenn ñi amuñu téléphone wala balaa euh, ñeen ñi sax amuñu télé wala courant si yenn goxee goxaar yi donc dañ leen koy kunne di leen di leen ko jaaye ñu leen koy jaayee ñi nga xam ne. Mhm. ñooñu mun nañ jàpp ne ñoom ba euh, dañuy nangu di lekk àq. parce que am na ñoo xam dañuy lekk àq parce que au delà des mesures am na ñoo xam ne ñoom. ñoom lu ministre bi mun a wax ñoom seen yoon nekku si mhm. dañuy dañuy continuer di nax nit ñi ñun mhm. nag ay daan yu sévère lañ leen lañ leen nar a teg mhm. donc ciment bi moom bu cinquante euh, kilo bi trois mille six la ñun ñi nga xam ne ñu ñu ngi bugg a tabax te tabax ak d'accord merci beaucoup Mbisaan euh, déggal maanaam Mbisaan Mbisaan <laughs> Mbisaan dafa ma dafa ma dafa ma traumatisé terrorisé ma Mbisaan maa ngi koy nuyu bu baax a baax Mbisaan alors euh, mais Matar kon loolu am na solo mm. léegi kon man 65000 bi may dégg mooy tonne ciment mooy jar loolu waaw ah moom la ñu fixé à soixante cinq mille mhm. d' accord yàlla na yombal ñëpp ba ñëpp mën caa jot mhm. ah su ko defee nag instant bi gars yi mën di tabax ñëpp di tabax mhm. léegi nag ma ñëw ci waxtu wi nga xamante ne nii lañ ko war a appliquer euh, Matar ban waxtu lañ ko war a appliquer wala tey jii nii su ma demee nii wàññi nañ ko am déet non lundi soo xëyee lundi bii di ñëw waaw tey mooy àjjuma. tey tey la àjjuma. ACR. Ah. dibeer lundi. mooy altine le 24 le 24. waaw ñaar fukki fan ak ñeent. ci weer wi ñu nekk di weeru juin. soo xëyee ci at mi di ñaari junne ñaar fukk ak ñeent mu ngay dee Matar demal. <laughs> soo xëyee. waaw wala ñu ñëw ñu ngi ñu ñuy déglu ci Sénégal 7. parce que c' est important. c' important moo tax moo tax nga interpellé ñu ba pare. Mhm. incité ñu pour ñu dem def un travail de recherche. am mhm. solo. donc loolu loolu ñu koy jaajëfal. Mm-hmm. waaye à lundi le 24 juin. incha allah képp ku nga xam ne sénégalais la. Mm-hmm. xëy bëgg jënd mburu 150 mm-hmm. francs nga ko war a dina fi raak dina fi commencé tàmbali de. képp kuy sénégalais. Eh, Mouhamed mi nekk fii. waaw <laughs> altine moom maa koy maa koy kii maa eh. koy maa koy dem nuyu yi eh. donc daal lënd bii. incha allah. Euh, lañ koy lañ koy tàmbali te nag tey jii tey jii la ministre bi war a signé décret bi. tey jii waaw docteur Serigne Serigne. moom moom tàmbali nañ mbir. loolu la wax dafa pare rek il a été exigeant nag. lii lañ soxla il a été exigeant il a été ferme prip dip kay. waaw prip dip comme ni nga koy waxee. waaw si wax nag li nga xam ne mooy prix moom lundi la. te tey tey tey su ma jugee fi ma jugee nii dinaa dem euh, signer li nga xam ne mooy arrêté bi. parce que arrêté bi mooy wane ne li nga xam ne moom mooy application bi c'est décisif maanaam léegi c'est c'est mun nañ ko appliquer. si boutique yëpp waaw c'est intéressant donc nag le président li nga xam ne mooy mbiru euh, boutique yi moom. Mhm. ñu ko joxee parole moom si ay kàddoom daa am marchandise yi nga xam ne boutique jëndoon nañ ko. Mhm. jëndoon nañ ko mhm. ñun taskati xibaar ñu laaj ko est-ce ba ngeen ko jëndee ministre bi ba ngeen waxtu wax wax ak moom est amul li nga xam ne tamit mhm. wax naa ko yéen ba pare waaw puisque jënd nañ ko ba pare waaw parce que ñoom dañuy toog waxtaan ak ministre bi ji bi mhm. waaye suñu génnee léeg la expliquer te te te loolu moo xam ne te te loolu bokkul ci li nga xam ne moom la Sénégalais yi bëgg. Mhm. Sénégalais yi ñu bëgg mooy dund gi wàññeeku lépp wàññeeku. d'accord ah, te ces mesures ce sont des mesures à à saluer. à saluer ah euh, quoi qu'on puisse dire Matar. Mhm. en tout cas yéen ñuy suivre si vous êtes en direct avec nous sachez que vous êtes euh, sur Sénégal 7 la chaîne leader et on est en train de parler de l'actualité de l'heure alors euh, en ce qui concerne l'actualité on a démarré par la première actualité qui consiste à vous informer par rapport à, à, la décision prise par le ministre du Commerce de l'Industrie, Dr Serigne Gueye Diop, euh, qui va signer, euh, selon Matar, dès aujourd'hui même, l'arrêté portant sur la des prix des denrées de euh, première nécessité mmh. qui entrera en vigueur donc à partir de ce lundi juin. Inch'Allah Matar bàyyi leen bu leen tooñ Matar. damaa diw tey waa dafa <laughs> mataar dafa leer tey tey dafa dafa dafa dafa leer tey jéem al ma mataar bàyyi ma dafa dugg ci <laughs> alors en tout cas merci beaucoup mataar léegi le temps ma ubbi antenne bi mm-hmm. ah je vais prendre également du côté de l'association des consommateurs du mm-hmm. Sénégal mm-hmm. ah ma dem tamit ci ci sama mbokk séeréer yi mooy les boulangers ah ñoom euh, le président de la fédération euh, bu bu bu bu ëmb boulanger yi nekk ci réew mi yéen itam internautes yi ngeen participer à l'émission ngeen joxe seen xalaat ah. Euh, sur euh, bien sûr euh, lii di décision ay dogal yu yees yoo xam te ne nii kilifa yi jël nañu ko surtout tey jii nii nga xam te ne nii ñoom ñoo lii la ñuy lañ doon laaj quoi naan na na wàññi gi am jëm ci wàllu njëg gi anam gi ñuy dundee. Mm-hmm. donc kooku mooy docteur Serigne Gueye Diop moom mooy kilifa gi ñu dénk wàll wi ñuy waxtaanee. Mm-hmm. alors ci waxtaan wi Matar boo ma mënee jokkal foofu. le temps ita Issa. ngeen ubbil ma antenne bi ñoom tamit ku ci mën a dugg mu dugg mais Darmon tuuti avec bien sûr sa complicité ak Issa euh, assemblée nationale la beneen bi Birame Souleye Diop mi nga xamante ni je l'ai dit tout à l'heure il est euh, il a remplacé ci wàllu présidence bu groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi euh, ca pencum ndaw réew ma ak ki nga xamante ne ni moom mooy l'honorable député euh, Ayib Daffé ñàkk caaxaan Ayib moom moo léegi jiite groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi ci assemblée nationale ginnaaw boobu ki nga xamante ne ni moom mooy Birame Souleye Diop joxe ka leng yi ah donc mu ngi noonu léegi nag eh, ci ci ci ci wàll ga ah, am na eh, leneen lu ci toftalu tamit moom Ayib Daffé mi nga xam te ne nii moom moo jiite woon commission des délégation parlementaires ah mm-hmm. beneen bi mooy ca diwaanu France ah ci jamono ju Guy Marius Sagna jàppee ne même Macron sait que Diomaye va chasser euh, tous les soldats français du Sénégal Guy Marius moo ko wax ci jamono jooju euh, ca président le président de la République du son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et actuellement Euh, foofee ca France mm, di fa def ay visites yu am solo ginnaaw ba mu doon participer démb comme ni ñu ko waxee ci forum ah, bu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak ñoomi seen donc daje nag sànq gis nga kii di moo fi nekkoon président de la République bu Sénégal deuxième président de la République du Sénégal ginnaaw Léopold Sédar Senghor kii mooy Abdou Diouf donc mu def euh, déplacement moom le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ànd ak soxnaam ak délégation donc dem seeti kooku di euh, deuxième président bu Sénégal donc mu ngi noonu di lu am solo loolu tamit lu ñuy rafetlu la ah ku nekk ak na nga ko gisee ah l' actualité waaye ba ca gën a fës bokk na ci ni ma ko waxee sànq ma delluwaat ci ngeen ubbil ma antenne bi gars yi dugg si bu ngeen defee plus 221 77 717 37 87 ministre bi ñu dénk wàllu industrie ak commerce. di Serigne Gueye Diop mi présenté tey jii ci conseil national de la consommation ah, nga xamante ni amal nañ ko tey jii ci àjjuma ji lii di ay proposition yu yees ah yoo xamante ne ni jëm na ci wàllu eh, anam gi ñuy dundeek ñam yeeg ñoomi seen donc muy wax ne ah li ñu recommandé bokk na ci ah, lu jëm ci wàllu eh, diwlin geek suukar geek ñoomi seen mburu mi surtout sama mbokk séeréer yi wàññi nañ ko. Mm-hmm. ah am na ko nekk ci ligne bi de internet bu njëkk mu ngi nii de xaaral ma jël ko. salaamaaleykum mbokk mi na nga def. maaleykum. maaleykum salaam wa waaw maa ngi lay nuyu baax a baax. yàlla yàlla maa ngi am jàmm bu baax ba am nga jàmm. waaw waaw ñu ngi bisimilah tur bi naka la ak foo ñu woowee. waaw Mbengue ah, jërëjëf ana waa Italie. ñëpp a ngi ci jàmm. bisimilah yow rek la ñuy teewlu suñu gars yi projet liñ ñu jaayoon liñ ñu jaayoon mënuñu koo def de. Hmm. ah wala jé jaaraguñ ci yoon wi bokk. déet waaye lu tax nga wax loolu. waaye waaye ndax man avant élection yëpp waxoon naa leen ko parce que système bi système bi moom jële ko fi wax ko yomb na waaye jëlee ko fi yomb. Hmm. waaw système bi gone gone gone koy dëkk waaye maga koy daan. d'accord. waaw système bi caaxaan jëlewu ko fi quoi. Hmm. waaw parce que maanaam ku fi nar a jëlee ku fi système bi ku ko fi nar a jëlee. xam nga mhm. da ci am geste yoo xam ne dañ naan rafet na. waaw mais vraiment da ci am yoo xamante ne nii mom ku fi jë na daa am ñoo xam ne ku fi bëgg a jëlee système bi moom doo doo jëflanteeg ñoom ci